marhaban ndaje bu Afrique di sommet de l'Union africaine jëmale ko ci li ñuy tuddee masculinité positive moom la yéene kaay la Soleil xëy fësal suñu naataango yi nañu njiitu réew mi Macky Sall ci boobu leen ndaje daal dina fay fësal ab bëgg-bëgg bu yees jëmale ko ci taxawaay bu ñu nar am ngir xeex ay fitna yu ñuy gàll ci losu soxna yi kaddu yooyee nag bu ñu sukkandikoo ci yéene kaay la Soleil président Macky Sall mu ngi koy yëkkate ci ubbi tek ñaareelu édition ndaje bu jëm ci Union africaine bi ñu jagleel wàllu masculinité positive ngir xool nees def bi daal di fi jëlee fitna yu ñuy gàll ci loosu jigéen ñi ak jànq yi président Macky Sall daal dinay plaider ngir lépp luy fitna bi nga xamante ne dañ koy teg ci kaw jigéen ñi ak ci tuut tànk yi mu daal di dàkk waaye ngir lu ni mel mën a antu moom dafa jàpp ni ñëpp ñoo ci war a dugal seen i yoxo moo xam pouvoir public bi kilifa diine yi ak kilifa aada yi membre société civile gi ak citoyen yi président Macky ne ñoom ñëpp ñoo war a àndandoo seen baat ci kaw ngir waxandoo ni mbir mi daal dinay doy sëkk lu ni mel waral yéene kaay laas nañu Macky Sall daal dinay gàddu combat mu ngi xamle ni Ousmane Sonko mu ngi woy di ñaawlu ay magu di njuuj njaaju régime bi amal ci janoom ak taskatu xibaar ni ki démb yéenekaay bi mu ngi xamle ni Ousmane Sonko daal dinay génne ay xibaar yu jëmale ko ci njënd ak njaayum ngànnaay ci Israël mu daal di ci dugal état wu Sénégal ni ruba Walf Fadjri quotidien dëggal xibaar bu ni mel ne ñu Ousmane Sonko daal dinay feeñal ab diil bu toll ci téeméer ak juróom ñeent fukk ak juróom benn milliards daal di feeñalaat beneen contrat bi ñu nëbb mi toll ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom benn milliards yi franc mi nga xamante ne daa dox ci diggante nguuru Sénégal ak njabootuk Pérez mi nga xamante ne ci Israël lañu fekk baax bu ñu sukkandikoo ci Walfadjri quotidien yéene kaay Sud Quotidien moom li ko soxal teg loxo mi ñuy teg loxo taskatu xibaar bi di Pape Alé waral suñu naatango yi di xamle ni kuréel mi njaboote taskatu xibaar ci kaso bi moom Pape Alé Niang di journaliste d'investigation ka bi mu ngi fàttali ne ci dimanche lañ ko teg loxo daal koy garde à vue ci sûreté urbaine bu Ndakaaru ginnaaw bu mu defee ab live ci plateforme numérique am jëmale ko ci mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr laata ñu koy mandat de dépôt moom Pape Alé moom mi sax yéenekaay Les Échos mu ngi xam le ni jëlee nañ ko ci prison bu Rebeuss daal di koy yóbbu fale ci Sébikotane presse bi itam mu ngi waajal koo libérer bu ñu sukkandikoo ci suñu naataango yi Les Échos ne ñu bokk na ci plan d'action ba këru yéenekaay yépp def benn édito ci altine yi rax si dolli itam def ay bannière ak i spot ak benn marche nationale di maanaam doxu ñaxtu bi ñu fas amal fépp ci réew mi ci ajuma gu ñuy dëgmal l'observateur jàppee mbir bu ni mel ab plan jëmale ko ci wàllum xeex bu taskatu xibaar yi teg ngir mën a libéré seen bile naataango di Pape Alé Niang tey ci ajuma ji Alioune Cissé di fësal listu gaynde yu fas dem ci coupe du monde Qatar 2022 bés bi jour ñëwaat ci gaañu gaañuy Sadio mi nga xamante but ak joxe ay passes décisives moom Thioundoume daanaka 60 pour cent la ci biir équipe bi ci biir atum 2022 jaa ngeen jëf.